Baxdaad di dëkku sëriñ Khadim Gaïndé Lô borom ndam moo ngi sancu fii ci département bu cees sëriñ Khadim Lô ko booba ak léegi ëpp na fukki at ak juróom yu teg pàkk bii nag ab àll bu yaatu rekk la woon kenn xalaatul woon dëkk fi ndax rabi àll yi bari woon nanu fi lool ci at yu néew sëriñ Khadim Gaïndé Lô tàmbali sanc bi ci ay taxawaay yi ci war yépp ci ndigalu Serigne Saliou Mbacke mu tedd ma mbébétu sëriñ bi lenn rekk la woon mooy sanc dëkk woote lislaam yar ndaw ñi booleeg tarbiya mag ñi ci diine liggéey bi nag sëriñ bi ànd kook farlu ak jëf ju sell ba tax na tey baxdaat soppiku na ci at yu néew sëriñ xaadim gaynde loo ci diir bu gàtt mu bët fa ab teen indi fi courant bi ak ndox mi taxawal daaray alxuraan ji ak daaray tarbiya ji waaye it sëriñ bi tàmbali fa liggéey bu mag a mag muy tabax jumaa ngir yàlla jumaa jooju tey mooy jumaa ji gën a mag ci biir Thiès ak li ko wër Serigne Khadim Gaynde Lo moo ñuy leeral ana turu Baxdaad fu mu bàyyi ko kon ñu déglu ko ñuy gas fondement yi ma ñëw ñu takk xayma fi takk xayma ndax ci ëtt bi lañu Serigne Touba fekk ànd ak sëñ Fallou mu sol lu sokolaa lu mel nii mu ne dafa mar nañ ko jox mu naan mu naan Serigne tubaab bi nga xam ne maa ngi wut turu dëkk bii turu Baxdaat ma leeral leen ci baatin tey bi nga xamee ne damay sanc damay sanc dëkk bii di Baxdaat ñu ni ma naa ko tuddee ndam nàngam baatin laa leen di wax na da ngeen ma déglu bu baax naa ko tuddee ndam nàngam am na ay tur yu bari yuy dox sama diggante yu doxoon ci booba jamono may def ay mbir di laaj tur wi ma koy laaj Serigne tubaa awma tontu lu mat weer bis bu ne ma laaj fii nan naka lay tudd ku ma xam ci booba jamono rek xamoon nga ma ne bu ma julee tisbaar ba noppi rek li jëm sama alxuraan ji may jàng ginnaaw gi fii laa ko daan jàng see ci xayma bi bu ma ñëwee ba geeweesu ba noppi ñu ñu fabawaat fi dellu ci kër yi ma def ko weer ak lu topp awma ma tontu ba bi nga xamee ni Serigne Touba dikk na fekk ma daldi dikk daldi may nuyu ba yeggale ni ma Ahmadou ma ne ko Mbàkke mu ne ma may mam ndox ma naan ma jox comme ndox mu naan ba yeggale mu ne ma xanaa fii yeey baax daat ma ni leen da ngeen di déglu baatin bi nag may leen sëñ Fallou keroog bi ma fekkee fii sol lu mel nii bi mu lu ma ñaan sëñ tubaab lu ma ñaan moo tax seen teen boobu nekk fii du jeex mukk dëkkub Baxdaad bokk na tey ci penc Serigne Touba yi gën a mag ci àdduna ndax taalibe yi aju ci sëriñ xaadim loo bari nanu lool tubaar fakal la taalibe yi fu nekk lañuy bàyyi ko di wuy si baxdaat saa su sëriñ bi wootee gannaaw ba ko sëriñ saaliwu joxe ndigalu màggal guddig juddug yonent bi sëriñ xaadimloo ci la taxawal li ñu naa guddig gàmmu sëriñ bi di ko màggal at mu jot ba ni mu dikkee fii ci goxu baxdaat ci atum 2007 tey nag gàmmu Baxdaad bokk na ci gàmmu yi ëpp mbooloo ci àdduna fii ci Thiès moom gàmmu Baxdaad royukaay la ci anam yépp mbooloo mi lu mu bari bari dañuy ànd ak yar ak teggin ak jaamu yàlla booleeg sellal gu mat sëkk ci farata ak sunna moo tax sëriñ bi di wax ni bis bii mooy bis bi ko ëppal solo ci bis yi muy taxawal yépp saa su weeru gàmmu gi teewee rekk sëriñ bi dafay ànd ak mbégte lool ci dalal gan yi ak di leen bernde gan yooyee nag xàmmee nañu si bu baax saa su nekk ki fi teewal président de la république ci département bi muy monsieur le préfet ak ministre yi nga xamante ni ñoo teewal waa Thiès ci gouvernement du Sénégal. président de la république ak gouvernement premier ministre Mahammed Abdallah Boun Abdallah ak mboolem membre du bi am mbégte trop teewal fi gouvernement bi bërëb nga xam ne ñu yónni ñu fi te ñu sawar fi ñëw lool ndax yàgg nañ ñu fi yónni di fi yàgg a teew eh, tey tamit ñu bégaat pour teewalaat fi eh, président di sant yàlla nag bañ fi ñëwee daaw ñaanoon mu may ñu ñu fi teew déwén te mu defal ñu ko non seulement ñu ñu teew teew ak mm, wér eh, yàlla defal ñu nawet bu barkeel def koom-koomu réew mi gën a suqaliku gën a kii yooyu yëpp yàlla may nañu ko donc dañuy tàllalaat suñu loxo ñaan te di ñaan lu ci sëriñ yu baax yi ci réew mi yëpp en particulier seen Xaadim Lo bu ma ñëwee nag Bagdad waaye it bis bi dina ci teew lépp luy mbokki sëriñ bi ci ak Mbàkke teewaay bi ci gën a ràññiku nag mooy ndawal sëriñ Sidi Muxtaar di xalif général de Mourides yàlla na fi yàgg te ku tedd ki moom dina yónnee njabootam boole kook ak ay xéewalam ak i barkeeloom ci bis bi su guddi gàmmu teroo ba fajar di jige sëriñ bi dina jël kàddu gi jokkoo ak waa àdduna ci lislaam ak ci actualité dëkk bi muy lu am solo te bari njariñ dunduk yonent bi lay leeral boole kook njàngaleem sëriñ Tuubaa bu wér ak xam-xamu àdduna bu rafet moo tax ku teewee gàmmu Baxdaad dootoo ko tardé kon moom defe naa mi ngi liggéeyal état démb nag damay dem Dakar mu yebal ma ci kilifa gu mag ci rajo oto bi ma toog ma dégg président de la di def déclaration di def li muy def ci at bi mu wax ba tudd ne soxla nañ auto suffisance alimentaire boobu sama xol daa seet ma xam ne moom mi ngi déglu gisee muy dugg si bu rëy boo xamante ni ngir màggal guddik Seydina Muhammad gis ngeen ko sëriñ baa ngi noonu mi ngi noonu di dugg si yëkkati loxoom tàllal ko ñëpp nag di ziyaar ñëpp nag ngeen gis ni mbooloo mi fépp fépp jóg taxaw di xool sëriñ bi di xaar nag li nga xamante ni gis ngeen noonu sëriñ baa ngi noonu di dugg si mi ngi noonu di mi ngi noonu nag di yéeg di ànd ak mbooloo mi mbooloo mi yëpp nag jóg taxaw di ko màggal nga xamante ni nga dégg Serigne Mamour Sougou noonu ni mu koy dugalee Mouhamadou Rasulullahi yaay borom ndaam jooju ngeen di dégg saa su ne rek bu ngeen ko déggee ngeen xam ni Serigne baa ngi noonu ñëpp nag daal di bég kontaan. ku sell ay cosaan fi mu bàyyi ko nekkoon ci xeet bu baax bu rafet. la sëriñ bi génne ci kër gi nag jubu ci tànt bi na nga si tant bi fees na dell mboolem gox gi ak gox goxaan yi mboolem mbokki taalibe yi. fépp ku ci nekk yaa ngi toog di xaar sëriñ bi dugg bi muy dugg nag am na ñoo xamante ni fa tabaarakallaahu moom rek la ñu gën a bëgg ci sëriñ bi ndax ni ko nit ñi alawtikoo ndax ni ko nit ñi euh, bëgg a xoolee ndax dugg gi muy dugg ci biir fi nga xamante ni mooy tànt bi nag jóge ci kër gi na si tembe góor jigéen mag ndaw màgget ñoom ñëpp fa tabaarakallaahu toog nañu ngir lan déglu si kaddu yi nga xamante ni at mu jot danañ ko fas yéene dégg ci ki nga xamante ni mooy responsable moran bu diwaan rahmatan lil alamin di sëriñ xaadim loo gaydel moom sëriñ Moustapha Lo moom sëriñ Maloy sa gis nga ko noonu sëriñ bi nii la dugg see ci tant bi mbokki jullit yi mbokki taalibe yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu nu ngi fii ci Bagdad kër Serigne Khadim Lo Gaydel moom Serigne Moustapha Lo moom Serigne Modou Lo Issa fas yéene ànd ak yéen ci guddig mawlidu rasulillahi sallallahu taala alayhi wa sallam muy ndigal loo xamee ni nag ma nga bawa woon ca xalifa bu tedd ba Serigne Salihu Mbacke yal na yàlla yokk ay leeram joxoon Serigne Khadim Lo ndigal ren nag toll ci ñaar fukkeelu at ak ñett sëriñ bi nag yeesal ndigal loolu ci sëriñ Sidil Muxtaar xalif général des Mourides yàlla na fi yàgg lool te ànd ak ni ko sëriñ Tubaa diglee rek ci gàmm taazimuhu bi sunnati bi ñu xëyee njàngum alxuraan lañ ko xëyee ci noonu rek ci yoor yoor bi nag ci la délégation bu mag bi jógee ci xalif général de des Mourides Serigne Sidil Mokhtar te Serigne Baara Laat jiite ko muy délégation bu mag Serigne Baara Diop sët ci Serigne Sidil ak Serigne Mor An ñoom it ñu nekk ca kër ga ci noonu nag la ñu agsee ci Bagdad kër Serigne Khadim Lo Gaydel Serigne bi dalal leen ñu ànd toog waxtaan ci saal bi ci noonu rek ci la ñu génnee nag jëm ci néeg bi nga xamante ni yàlla rek sunu borom bi tabaraka wa taala moo ko moom wa anna al masajida lillahi fala tad'u ma allahi ahada ci noonu rek muy naal boo xamante ni Serigne Khadim gay Gaydel naal na ko jële ko ndigal na ca Serigne Saliou muy jumaa ju réy joo xamante